li tax li li am solo rek mooy ay points yu ndaw yu ñuy souligner pour bàyyi la ko xel Sénégalais yi c'est très important xam nga ñu xam ko quoi. mooy di ne actuellement fi mu toll nii Sénégal dafa toll ci sénégal yi parce que sëñ Abdou Lahad day wax mu ne mooy nit bu ñu la tegee bant jugal taxaw ba ñu xam doo bant nga toogaat. Macky Sall dafa ñu teg bant quoi jot nañu taxaw xamal ko ni du ñu bant quoi léegi c'est très important dafa am lu am solo boo xam ne dama bëgg Sénégalais ay xam ko mooy ñun ñoom dañ ne ñun dañoo bëgg taal dëkk te contrairement li am mooy ñoom ñoo bëgg taal dëkk bi ñoom ñoo bëgg taal dëkk bi te na ko kilifa diine kilifa aada sunu yaay yi ak sunu sœur yi ak ñëpp xam ne ñun juguñu pour daal dëkk bi ñoom ñoo bëgg taal dëkk bi. naka la ñu taal dëkk bi mooy ay 4 di jàpp ñu ngi seen kër ay 2 heures du matin ci ko fenn Macky Sall nag jaay doole la nekk di def ku fi wax loo waxoon ngay répété waat même wax yi rek quoi li wax mooy askanu Sénégal la ñuy on fait appel à la population sénégalaise ñëpp nag na ko kilifa diine yi dégg na ko ñëpp dégg ñun on se laissera pas on se laissera du ñu bàyyi Macky Sall jël ñu bëgg ñu piétiner bëgg yor réew yor ko nu mu ko neexee def lu ko neex li mu jàppee ñëpp di indi coow yëpp wax naa ko fi keroog Aliou Dunguru Sow dafa taxaw en tant que tukulóor di làkk en tukulóor ne carrément nag troisième mandat nguur bu ko xasee ba téye da nga cee langaamu képp ku la ko ndara xaj nga génnee jaas yi dal ci kaw député la dara fekk ko si dara fekk ko si tey li ñuy toppee euh, Ousmane Sonko nii yëpp ñëpp xam nañ lan la duñ ci nekk ci détail yooyu ko mais dama bëgg peuple xam peuple sénégalais bi xam ni suba insha allahu rabbi nous la peuple collectif citoyen le peuple dañuy dem topp procédure normale yi xamal ko mag ñi ndax dañuy suivre xamal ko sëriñ si xamal ko sunu yaay dañ ay kilifa lañ ay responsable dañuy dem préfecture déposer demand benn déclaration pour manifestation place de l' lañ jëm fa la ñuy defee manifestation samedi samedi la ñuy def manifestation suba la ñuy dugal déclaration bi dañ koy dugal parce que dañuy topp procédure yi parce que constitution Sénégal moo ñu autorisé ñun bu ñu amee lu ñu naqari ñu manifester léegi nag yoon dafa wax ne am réew ay texte moo boole maanaam charte nday réew mooy constitution wu Sénégal maanaam mooy norme yi ñuy doxee norme yooyu noonu bu fekkee ni réew ma njiite ak réew ma ak population ba seen njiite respecté wuñu norme yi leen boole devoir la ci askan wi ñu jug foqati pouvoir bi te Macky Sall ko bàyyee noonu te dafa wax benn affaire na leer on fait appel à ñëw indi sa gel parce que Macky Sall seytaane la te ay seytaane la àndal ku ñëw indaale sa masque na ko seen yëpp dégg woowuñu fenn fitna mais nag ñoom luñ ci ci bañ lu ñu baax ñu ngeer ko dinañ ko teg ci yoon doxal ko ni ko waree doxalee ci yoon lu ñu baax ñu ngeer ko donc na ko Sénégal yëpp xam Guy Marius Sagna dafa am jabar ami doom Sénégalais yi toog seen kër yéen laay waxal yéen yi may seetaan nii foofu ngeen toog ci ruq yi di wax ku ne di woqante Guy Marius Sagna liggéeyam am jabaram ami doomam am ay doom yu yu am 4 man dama ko am man kii daa am këram am liggéeyam Dame Mbodj dafa am liggéeyam quoi ñun bu ñu toog ci média yi di wax ni du parce que dafa ñu neex mais ce pays là li fi nekk yëpp ñëpp lay dal fii ngeen gisee ci nguur Macky Sall ministre ministre de l'environnement boo xam ni braconnier la braconnier léegi nag jot na ngeen xam ni jug dafa jot xam ngeen ni bu baax place de l'indépendance ku fay dugal déclaration xam ngeen li may bëgg a wax donc kon nag na ko mag ñi xam na ko sëriñ si xam na ko ñëpp xam suba 10 heures incha allahu rabbi le dina dem dugal déclaration préfecture pour samedi incha allahu rabbi ñu woo toute la population sénégalaise kuy xeex góor jigéen Macky Sall da koy dooleel ku xeex daara alxuraan yi Macky Sall da koy doole day xeex daara alxuraan yi ku képp koo xam ne gëm nga ni Sénégal xale yi dañu war a jàng gëm nga ni dañu am war a presse bi liberté d'expression dafa am dafa am dañu war a wax mënooñu privé suñu lépp privé ñu suñu liberté d'expression léegi doyari boobu ak ñàkk fayda boobu nag ñun on fera face à sa donc ñu ngi woo ñëpp samedi incha allah 10 heures place de l'indépendance képp ku mën a ñëw na nga teew foo mën a ñëwee foo ñëwee baax na soxlawul ay groupe di ñëw dugal ci car rapide ak tataay ku ne ñëw terul tàggoo jël leen taxi nañ daje foofu 10 heures ñu ñëpp ñu ngi fa suba dinañ dugal demande déclaration bi asalaamaaleykum wa rahmatulah d'accord jaajëf un à partir dans la paix et dans la sérénité d'organiser des élections libres et transparentes à l'horizon de 2024 il ne lui appartient pas de, de choisir son successeur il ne lui appartient pas d'essayer ou de tenter de s'imposer pour un troisième mandat que le peuple sénégalais n'acceptera pas. Cet acquis démocratique que nous avons conquis de haute lutte doit être préservé par tous les moyens. Nous ne sommes plus ni esclaves ni colonisés. On n'acceptera pas que des dirigeants vassalisés aux puissances occidentales se permettent de compromettre notre avenir et celui de nos enfants. La mission qui lui a été confiée a été sabordée par son irresponsabilité. Et par voie de conséquence, on ne lui permettra pas d'opprimer les Sénégalais. Le Sénégal est connu comme étant un peuple de grands résistants. Nous résisterons par tous les moyens car la Constitution nous le confère. Dans son préambule, car le Sénégal a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, dans son préambule, dispose, je cite, Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection devient pour le peuple et tout pan du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. L'opposition classique s'est terrée parce qu'ils veulent sacrifier la nouvelle vague de leaders africains imbus des valeurs de dignité et de patriotisme. Où sont ces dirigeants Où sont ces leaders de l'opposition Ils se sont terrés parce qu'ils pensent que nous allons servir de chair à canon pour ensuite les propulser au pouvoir. S'ils le croient, ils se trompent. Le peuple n'abdiquera pas et l'on s'organisera. On ne menace ni d'attenter à la sécurité de l'État, ni de déstabiliser ce pays dont la responsabilité nous revient de construire. Nous informons Macky Sall, sa famille, les députés du peuple, les forces de sécurité et de défense qui brillent de partout dans, les, dans le monde de par mission de maintien de la paix, nous leur rappelons que leur mission est de défendre et de protéger le peuple qui les, qui les, qui nourrit et les entretient, mais les, leur mission n'est pas d'opprimer le peuple qu'ils sont censés défendre. À cet effet, nous envisageons, pour des, par souci de cohérence et par souci de respect aux conventions et aux normes, aux droits et aux lois de ce pays de déposer dès demain une marche, une demande de marche pour la paix, la démocratie et la stabilité, mais aussi pour la justice, marche qui aura lieu le samedi prochain par la grâce d'Allah.